Euh, sëñ tey nga gis euh, euh, li assemblée demee ñu war a voté tey li nga xamante ni moom mooy projet de loi bi war a prolonger li nga xamante ni moom mooy mandat wu président Macky nga gis situation bi tey ni mu demee nii naka ngeen dundee li nga xamante ni moom mooy situation bi yéen ñuy fekk fii nii ci alentour assemblée bi. situation bi ni dund neexuñu man dama jàpp ni un président bu sa mandat jeexee da war a dem à temps surtout sa population bëgguñu la Macky Sall nañu dimbali laa war a bu mu fi mu bañ mu dem. ni ko ay moroomam defee ni mu ko waxee woon te ay du def lu yées ay moroomam def na def loolu loi bii ñuy woote jàll population bëgguñ mu jàll donc nañ dimbali laa rasul mu bàyyi ñu suñ suñ réew ci jàmm ak salaam kon niñ ko joxee woon loolu rek lañ koy ñaan wasalaam. naa ngay wax li nga xamante ne mooy député yi nekk si biir wala li nga xamante ne moom mooy loi boobu. non ñoom dañ leen rappelé li maam El Hadj Abdou waxoon rek lépp lu fu waay wootee da nga ko da nga ko woote waat ëllëg yowmal xiyaama nan xool seen aqulaay taala ñu xol li gën ci réew mi ñu def ko te ñëpp xam na li gën ci réew mi donc buñ xool ay intérêt personnel pour pour pour sànq réew mi voilà merci maa booy ñëw yaa njëkk a kii wolof en français eh. Habib Habib woo ko wool wool Habib wool Habib Biram ma ne wax nga gars teel nga Donc voilà, euh, nous venons de sortir du Conseil constitutionnel euh, dans le cadre d'une démarche concertée Euh, la, la, le collectif des candidats à l'élection présidentielle euh, du 25 février 2024, euh, même si les recours sont individuels, ce collectif avait décidé de déposer aujourd'hui une première requête au Conseil constitutionnel qui va après être suivie d'autres requêtes, mais laquelle requête est assise sur euh, euh, la base des fondements d'abord de des articles 29 et 34 du, euh, de, de, de la Constitution Sénégal. Euh, en réalité, vous êtes au courant que la problématique qui se pose aujourd'hui a trait au déroulement normal du scrutin en cours. Et au nom de ça, le Conseil a une responsabilité historique. quand bien même euh, ils sont accusés aujourd'hui, pour certains, les membres du Conseil constitutionnel, euh, d'une certaine connivence dans, dans le cadre d'un processus en cours à l'Assemblée nationale, nous, nous pensons que le, le, respect des dispositions légales et réglementaires nous permet aujourd'hui à bon droit de demander au Conseil constitutionnel de stopper, de donner son avis sur l'illégalité du décret, d'ailleurs qui est en circulation certainement, mais que personne n'a pu voir, lequel décret déjà... Euh, devait fonder normalement la, la, la, la tenue aujourd'hui d'une session à l'Assemblée nationale. Mais je pense que personne dans ce pays n'a pu prendre possession de ce décret. Nous ne savons pas si le décret a été contresigné par le Premier ministre. Donc ce sont des interrogations légales sur lesquelles nous pensons déjà que le Conseil doit statuer. Par ailleurs, Euh, compte tenu justement du rôle central du Conseil constitutionnel, nous pensons que même si euh, le président a un pouvoir pour convoquer le corps, corps électoral, il n'y a pas une disposition légale qui permette justement qu'il puisse abroger ça. Donc, donc euh, nous demandons au Conseil de statuer sur des questions comme ça et aussi sur l'intangibilité du mandat en, euh, en application des dispositions de l'article 103 de la Constitution. Donc voilà en résumé ce qui a motivé aujourd'hui notre requête au Conseil constitutionnel qui aujourd'hui est devant l'histoire et qui doit prendre des décisions dans le cadre qui peuvent ramener la sérénité dans le pays mais qui peuvent aussi euh, sortir de notre de cette euh, période sombre qui constitue une insulte pour tous les Sénégalais. Parce que justement, euh, dans le monde, dans le Conseil des Nations, notre pays était vu comme de démocratie et d'état de droit. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation où aujourd'hui nous sommes la risée du monde. Et il y a une discordance euh, même de, de, de, position de la communauté internationale sur ce sujet-là. Ça, ça, montre combien justement la position du Sénégal est sensible. Le Conseil constitutionnel a un rôle historique, c'est de rétablir le Sénégal dans son lustre qu'on lui connaissait en disant le droit, uniquement le droit. Donc voilà ce qui a motivé la, la, la, la requête. Euh, nous continuons à appeler les Sénégalais à continuer avec tous les autres candidats à mener leur campagne électorale conformément aux dispositions légales et réglementaires. Et des actions sont prévues après la réunion que le collectif des candidats tiendra ce soir à 16h. Nous dirons aussi ce que nous devrons faire pour la suite. Je rappelle que nous avons aussi euh, en cours un projet de construction d'un pool d'avocats qui va statuer et qui va nous accompagner dans ce processus-là. Donc c'est ce que je pouvais dire pour la version française. En attendant, que euh, notre collègue Cheikh Tidiane Dieye la version wolof. merci euh, <coughs> salaamaaleykum mbokki Sénégal euh, comme ni ko président Mame Boye Diao defee ci français may jël kàddu ci turu candidat yi nga xam ne ñoo xëy tey ñëw fii ci conseil constitutionnel bu Sénégal pour déposer fii ay këyit ñu ko di wax requête requête bi nag liñ ci jublu mooy wax conseil constitutionnel pour mu dogal pour mu jëmmal jëfal. lii nga xam ne war nañ ko continuer campagne électorale bi dañu bëgg conseil constitutionnel wax jëf ni campagne électorale bu Sénégal dakkul taxawul élection bi suspendre wuñ ko élection bi reporté wuñ ko élection bi annulé wuñ ko ñu bëgg mu wax kàddu googu ndax moom rek moom moo am sañ-sañ ci reporté élection ndax boo seetee ci constitution bu Sénégal ci article vingt-neuf ak article trente-quatre dañu ni conseil constitutionnel kese moo am sañ-sañ moo am ndogal ci ñu ne élection yi nangam nangam tax na dàq nañ ko wala reporté nañ ko loolu nag dañu gis ni président Macky Sall dafa jël décret décret boo xam ne bi mu ko jëlee amul benn sénégalais boo xam ne tey mën ngaa ni teg naa ci sama bët décret bi mu jël ñëpp xam nañu ni décret boo xam ni premier ministre du Sénégal da koo war a contre signer maanaam bu président signé ba pare premier ministre bu Sénégal da koo war a signer décret boobu nag ba léegi ñoom ñu ngi koy nëbb di ko lax wane ñu ni décret bi am na waaye li ñu ci jàpp ba tax ñu am sañ-sañu ñëw ci conseil moo di discours bi mu def barki démb le 3 dafa cité décret bi ni moom def na décret tudd décret bi mu ni décret boobu nag moo ko may sañ-sañ mu teg lii mu teg ba tey bu député yi nekkee biir assemblée di fi wax di wote proposition de loi boo xam ne dugal nañu ko pour dàq élection yi dafa sukkandiku itam ci boobu boobule donc loolu nag moo tax ñu ni comme moom tudd na décret bi ni am na ñu dellu ñun ci conseil constitutionnel ne ko président de la république kàddoom donte gisuñu décret kàddoom jàpp nañu ni dëgg la ndax moom moo ko war a signé nee na signé na ko. loolu nag moo tax ñu ni conseil constitutionnel bu président jël sa sa wareef président mënul jël sa pouvoir ndax pouvoir toxal élection yow kese yaa ko mën a jël te président nee na moo koy toxal ci wàllu décret kese. loolu nag la ñu jàpp ni conseil constitutionnel waroon na ko dégg jébbal nañ ko ko ñii fi nekk nag jëf loolu yëkkati ko. candidat yi président Habib Sy mu ngi ci bokk na ci dugal requête man mi Cheikh Tidiane Dièye bokk na man mi waaw gis nga nag waaw ñu ngi ñu ngi wax waaw mbokk yi kon yéen a ko seetaanandoo waaw C'est le Euh, euh, papa tey ñu gis situation bi ni mu mel fii nii ci assemblée ñu tase fi ak yow ci alentour bi euh, naka ngeen dundee situation bi tey ji waaw man maa ngi jóge ba Touba dañoo woote woon tey ne ñëpp nañ daje assemblée loolu ma tax a déplacé ñëw assemblée ndax yëf yi nekkatul mbiru politique mbiru réew mi la. nit ñu toog seen kër naan sama yoon nekku ci xamuñu li xew ñu ngi wor seen bopp ndax tey bu yëf yi méttee ñu ñëpp koy dund bu yëf yi neexee ñu ñëpp koy dund. kon nit ki nag war nangu bu yëf yi neexee mu jariñu te lu xew mu ne sama yoon nekku ci kon na am ngoro bu neexee moom tamit buñ ko jariñu kon sénégal yi ñoo war a xam li ñu bëgg ndax affaire bi nekkatul affaire politique déedéet man li ma gisee nii euh, ndax dëkk bu amatul institution ñun ñëpp nous sommes en ñun ñëpp ak ku munti doon laay wax nii ndax police amatul gendarmerie amatul. conseil constitutionnel amatul justice amatul léegi le même le président le 2 avril il n'est plus président même bu ñu bu ñu jéemee ñoom assemblée fexe ba yokkaat li ñu wax te teguñu ko ci loo xam ni justice la wala ay euh, loi la wala dara ndax ñëpp xam nañu assemblée mënta changer une décision du conseil constitutionnel. c'est deux instances différentes kon mënul nekk nit ñi nag ñoo war a jëfe seen xel te xam ni député yi ma gis nii ils n'ont même pas niveau ils n'ont même pas le niveau on a sax on a nag ce malheur parce que si on avait des dépos des des, des députés de niveau am na loo xam ne sañoo ko posé ci réew mais nag le PDS est en train de faire la le même coup aux Sénégalais qu'en 2019 Abdoulaye Wade l'avait fait bi mu ñëwee ne xotti leen seen kadante yi. parce que bon dee Macky da leen di donc il voulait pas léegi nag nit ñi ñoo war a yeewu soit ils sont en campagne électorale ils ils partent faire leur campagne et laisser gars ñoom def seen manigance mais xam nga lu may ragal mooy ñu toog bañ a dem campagne léegi nag ñoom ñu toog ba bis ba ñooy leen élection am na bu boobaa baaxul kon na ñëpp wut jàmm jàmm ji mooy na ñëpp fexe xam ni lii warta prospérer parce que baaxul ci réew mi ñun ñëpp am problème bu boobaa. ndax dëkk bu amul ay ay pilier rek musiba mun na faa xew dëkk yi ñuy gis yëpp ñu naan ay guerre civile yooyu yëpp lii moo koy indi nañ wut jàmm jàmm ji mooy loolu mooy ne ñëpp fexe rek ba yàlla def nit ñi déggoo ci ay xel te bañ a topp suñu bëgg-bëgg waaw suñu bëgg-bëgg buñ ko toppee rek nañ def musiba waaw na ñëpp jëfe xel loolu tax mu ne ma ñëw naa xool lu xew parce que après hôpital Dantec bay laa jëm. j'ai un malade mais dama doon romb xool situation bi mais li may ñaan mooy nañ ñuy jëfe seen xel bu kenn jëfe bëgg-bëggam ndax boo jëfee sa bëgg-bëgg rek yaakaar ne dina la la jañ dëkk bu instable du jëriñ kenn ñun ñëpp dugg ci gutti ki baaxul bu ko kenn ñaan bu ko kenn sooke nañu toog jëfe suñu xel ñun ñëpp ba lii bañ a am ku ci mën a wax na wax ku ci mën a dox na dox. ñu dem ci jàmm bu ñu dem élection ñu dem ko ci jàmm ki gañ a gañe ñu xam ne moom la yàlla def parce que président kenn defu ko sa bopp déedéet ñun ñëpp a yem judd mais yàlla bu bindee si jëbi da ngay doon président da koy doon allah kulli xalin kenn mun na ko tee dekk kon nit ñi munu mënuñoo doon ay jullit di gëm la contraire boo mun ne yàlla ba pay daan yàlla ak yàlla dafa am fulla de kuy ñaan ne yàlla ak da lay bàyyi ak ak nañ des nañ nañ yem ci yàlla. yàlla nag mooy dogal ci ko soob sa destiné bind na ko ba nga juddoo la ngay am xam xam na ko sa wërsëg xam nga sàcc mooy lan sàcc mooy yàq sa wërsëg ndax boo defoon nànk jot loolu mais boo sàccee rëcc mooy da jël sa wërsëg d'une autre manière et tubaab nee na l'argent mal acquis ne profite jamais kon boo yeewoo doo ci dugg da ngay da dox ci yoon rek parce que boo demee États-Unis ñoom. dañuy jëfe alxuraan duñ ko wax de ñun dañuy wax alxuraan mais duñ ko jëfe États-Unis dañuy jëfe alxuraan xoolal baax seen seen pratique dañ boo fenee dootoo fi duggaat kon fen lu dangereux la te ñun dañ ko oyofal malheureusement Sénégal te loolu ñun ñoo war a conscient xam ne ay jullit lañu suñu valeur yi ñu yàlla euh, euh, euh, bi ñu signé suñu borom daan ne ay jullit lañu loolu ñun ñoo ko war a sàmm ku ci nekk nag ndax ku nekk de boo dee ëllëg sa bàmmeel de attention am na ñoo xam dañ yaakaar ni peut da ngay def lu la neex fii yàlla moom toppatowul bu subaa tamit dangay ngay comme lettre à la poste loolu xanaa kon nga bañ a doon julli sa ko gën ndax doo gëm dara pare <laughs> yow di yaakaar le contraire man ba ba may ba ba may ba may faatu sëñ Saliou la ma waxoon ci lay ne nee na ma bul àtt nit ci kaw njott mbaa ci ayu nettali gis nga journal yi ni muy bëri nii ak média yi ni bari amul benn bu ma ciy gëm ndax nettali la te nee na bul atti nit mukk bu fekkee jullit nga ci kaw ay njott ak ay nettali na nga ko attee ci kaw li nga gis ak lamu la wax moom bu ko ñëpp defee rek seytaane du ñu mun comprendre nga man bu mun naa déglu seen média bii mais du tax ma gëm la ngeen wax ndax man man miy wax nii mun naa fen mun naa wax dëgg kon boo ma dégloo ba pare waroo maa gëm waroo waroo attew ci lu ma wax di jëf déedéet yow demalal sa bopp nga déggal sa bopp nit ki nga concerné bi wax mbaa mu jëf nga gis nga attew mais loolu bu amul rek baaxut waaw kon maa ngi tey ñu ñu ñu nekk ci assemblée bi di voté loi bi nga xamante moom moo war a yokk ma ndaw président Macky Sall lan nga wax député yi nga nar a amal li nu mel. bon li li ma euh, man ci li ma xam bokk li ma jàng parce que je suis un ancien de l'aviation civile. j'ai fait trente ans service kon amatuma dara ci àddina j'ai été enfermé fois par Farba Senghor parce que damay wax man fu ma dëgg fekk daf may rey boobu dañu buggoon génn aseg naa may leen bu leen génn ndax Sénégal dafay perte ndax gis nga temps bi avion di def ci espace Sénégal ça fait cinq minutes or pour avoir une redevance aéronautique c'est la distance parcourue pois le poids de l'avion plus un coefficient kon temps bi muy def dafay joué kon tey bu ñu gënoon ASECNA tey loo xam ne ñun ñoo ko créé en 1959 nga xëy yow defal dara ba mu ba mu jag boobu état yi ñoo daan ñoo daan ñoo daan cotiser ñu dem ba yàlla def ASECNA mun a yore boppam ñu suñ directeur euh, euh, euh, bi nekk fii Sénégal économiquement ñu ciy gagné ñuy embauché suñuy sénégalais ñu xëy ñooy dañ ciy génn. loolu baaxul may leen non lii baaxul bu mu am. waaw maa ngi maa ngi leen di fay man may madame Adama Diop fay vice présidente parti jiital wareef ba pare parti bi décidé soutenir la candidature de Diomaye fay sama doom baay waaw di wax nag ni lii dafa normalul Macky dafa jël réew mi jàppe ko comme alalu baayam mu ma ne ko président yi fi jaar yëpp kenn mësu fi def lu mel nii Senghor la moo ca doore ka te Senghor naan nguur kenn du ko ñëdd moom na dafa bëgg ñëdd nguur gi te du ko fi ñëdde waaw bari barricade na nag ndax na day wane dooleem waaye dooleem jeex na ba pare dooleem dafa jeex ba pare fii moom maa man ko kekk la nen du fi bondee carrément nañ waxante dëgg loi bi mu voté ko mu bañ ko voté du teye campagne bi continuer nit ñi dem aux élections ndax dañu tàyyi dañu sonn waaw maa ma ne ko famille yaa ngi sonn nit ñaa ngi ba léegi inondation yi boo demee banlieue nit ñaa ngi añ ci seen kaw lal teg seen palaat ci seen kaw lal ndax seen néeg yi ba léegi ñu ngi inondé waxul waxul loolu mu toog di def politique politicienne di xool fu mu jaar nit ñi bi ñuy wax report bi yàgg na ñëpp naan déet xanaa du ko def xanaa du ko def léegi nag moom defanteeg moom la ñuy def ba mu saf ca sàpp fu mu yem neex waaye fii moo ma ni ko appal du ñun ñaa ngi naan 2 avril mais avant 2 avril sax Macky dinañu appal parce que dafa ëpp waaw ñi nguur nag kenn du ko ñedd waaw. tey ñuy voté loi nga xamante ni si moom moo war a prolonger li nga xamante ne moom mooy mandat am fii ci élec ci euh, euh, assemblée bi lan ngay wax député xamante ne ñoom ñu ngi ci biir war a voté li nu mel. député yi xanaa am gàcce rek xanaa député bu am fulla ak fayda bañ ko voté mooy la vraie opposition waaye ñi ci des ñëpp mun naa ma ko am nañu xool seen doom yi sax nañu am lu ñuy rus parce que ku nangu continuer di di bàyyi sénégalais yi ñuy vivre naqar gi ñuy vivre coono gi ñuy vivre añatuñu ba suur reeratuñu ba suur ku ci añul ku ci ku ci añ door reer ku ci ndékki doo añ moo ma ko ñu nekkee noonu naan ndax yàlla boog 2 avril mu abal ñu mu ñëw fii naan dafay prolongé ba am ñu ci am audace naan 6 mois ak un an loolu kenn mënatu ko dund fii ci senegal dafa bëgg dañu bëgg mu leer ci bopp Macky bu fekkee xëy na bopp bi dafa way nañu ko wax waaw nañu ko wax mais fi mu ne nii waaw ma ne ko daan ñu ñëfanteeg moom ba fu mu yem neex waaw dañ daan wax naan euh, Sonko dafa naan gàtt sa gàtt sa mais Macky loolu rek la mérité gàtt sa gàtt sa waaw une fois loi bi jàll wala mu bañ a jàll ak yu mais bu jàllee yéen opposition bi la moo war a nekk seen taxawaay. continuer ignorer ko parce que de toute façon ñu ngi entreprendre ay actions pour que décret bi yëpp ñu ñu annulé ko loi yëpp ñu annulé ko parce que mënuñu toog rek ni ñoom moom dëkk bi ñu dëkk bi c'est un groupuscule c'est un petit group autour de Macky qui est de de tirer les don dont ay géwala ki ay ñu kenn xamul waa loolu nag la ñu war a bàyyi waaw Macky y a des cadres valables qui peuvent gérer ce pays yàq na dëkk bi ba yegg si fii yàq na dëkk bi ba yegg si ci kon nag nañu may nag te mu abal ñu la 2 avril daal di ñaan nañu ko ngir yàlla mu dagale ay kanaanaam te dem des nag ñuy xaar nag ndax du dellu si sous une autre forme parce que moo ma ne ko li mu sàccit ak li ñeneen ñi sàcc dinañ ko delloo waaw mu mel ni que ñu bari dañuy wax que ni euh, PDS euh, Karim Wade bi tax ñuy def li nu mel jaru ko. ah man de xaw ma mënu ma wax nag ndax man maa man ko à doon nañu considérer sax ànd ak Karim damay wax sama dëgg rek te yàlla tax mais lii ma gis man sama déçu sama déçu parce que nag après tout ana Karim ana Karim lu tax jël avion ñëw xeex leen ñu mbaa mu xeexal boppam bokk mais ma nga toog fa mu toog waaw ma ne ko am na ko koy woowee le prince de Qatar mais c'est le prince de Qatar Karim. je vais parler en français pour que la communauté internationale comprenne ce qui se passe. Parce que moi, j'ai travaillé aux Nations Unies pendant 17 ans. J'ai travaillé à la Banque africaine de développement. Donc, je, je sais de ce la gouvernance, je sais ce qu'est le droit. Et le droit, euh, le, le, le droit pour les populations. Je le sais. Et ce qui se passe actuellement au Sénégal, ça dépasse l'entendement. de On est dans un pays d'autre chose qu'un pays de droit comme on l'a connu. Actuellement, nous avons même honte de nous retrouver devant certains de nos collègues qui enviaient la démocratie du Sénégal. Je me souviens un jour, j'étais au Togo, ça fait longtemps, euh, et apparemment pour une quelconque fête, on a décidé que c'était férié. Et je leur dit, mais nous, si on était au Sénégal, on peut travailler dans, dans l'hôtel. me disent, ah, Adama, on n'est pas au Sénégal, on est en Afrique. Mais aujourd'hui, être au Sénégal, c'est être en Afrique. Ah, parce que ce qui se passe, mom, ça, nous fait honte ça nous fait honte comme sa chose, comme son héritage, comme un héritage de son père. Non. Il est président, il a été nommé et le 2 avril, on s'attend à ce qu'il dégage. J'ai bien mon, ma pancarte Macky dégage. Je l'ai confectionnée moi-même et non au report. Voilà. Maintenant, s'il s'entête à le faire, il y a même des guides religieux qui lui ont dit non. S'il s'entête à le faire, advienne que pourra. Vraiment. En anglais like to call the attention of the international community. What's happening in Senegal is just unbearable. People are tired, people are sick and they can't cure themselves. They can't go to hospital because all the costs of uh, getting uh, uh, hospital care is just out of, of pocket, I would say. And also people have been suffering for so long and Macky Sall has taken this country for granted, taken the people of this country for granted and it can't continue any longer. It just can't continue any longer. So we are calling the international community to come and help us because actually we are not far from the, the, the, the assembly but we just can't access it because of the fact that he has put all his police and militaries around. But he can tie our tongues and we will be talking, we will be expressing our, our disappointment until he gets out of this country. I have brought and prepared myself this asking to Macky Sall to quit this country and also saying no to the cancellation or postponement of the elections. Thank you. salaamaaleykum mbokk internet yi yéen a ko euh, gisandoo noonu ñu jógee foofee nga xamante ni moom mooy euh, euh, fee nga xamante ni moom mooy fële ci assemblée nationale ngir rek dëttaloo leen loi bi nga xamante ni doon nañ ko fa voté woon mu jëm ci mbirum prolong prolongement wu kii di mandaaw kii di président de la république ndiki tey nag gis ngeen foofee ci assemblée nationale li nga xamante ni moom mooy disposition sécuritaire bu takk lool lool bu ñu fa daal di amal mu nekk loo xamante ni si nii lu am am solo la ko fa waaye nag mu nekk lu ay ay dispositions yu strictes yu ñu fa daal teg nga xamante ni si nii boo dee jàll ka ngay dox wala ngay oto sax euh, dafay am noo xamante ni nii foofu lañ daal di euh, euh, jaarloo du fépp daal la nit ñi daal di mën a jaar mu nekk lu doy waar loo xamante ni si nemeeku nañ di opposition bi dañu woote woon tey woo askan bi nañ leen fekk fi ci assemblée nationale waaye nag lañ fa nemmeeku mooy ab calme lañ fa daal di nemmeeku Philips si ak ñeneen ñoo xamante ni si ci wàllu opposition bi lañ bokkoon doon déposé ab recours foofee ca conseil constitutionnel la ëmpale wóola ni nag conseil constitutionnel ak foofee nga xamante si moom mooy euh, assemblée nationale sorewul lool fa lañ daal jaar bañ demee nag euh, euh, li nga xamante moom mooy presse ay kàddu yoo xamante ni si di expliqué maanaam la nga ni moom lañ doon def foofee ca conseil constitutionnel waaye wax ja mujjul àgg ndax police moo fa mujj daal ñëw daal tasaare la nga xamante ni moom mooy leen ay oto ñoom Mame Boye Diao muy les candidats daal leen di yóbbuwaat ñu daal di ah, am ah, foofee jamono jële ci assemblée nationale ba tey ñoom ah, ñu amal la nga xamante ni moom mooy mbir ma foofee ca li nga xamante ni si moom mooy biir assemblée nationale mu ñeel mbirum loolee di vote yi nga xamante ni si ni moom moo ñeel mbirum lii di prolongement wu lii di nga xamante ni moom mooy mandat wu di président de la république loolee nag moo tax ñooñee nga xamante ñoom ñooy opposition bi ànd nañu si taxawoon nag tey ñu woote woon ñoo ñu seen ay euh, naataango ak li nga xamante ne seen ay partisans sympathisants ak li nga xamante ne moom mooy militant yi ñu daal leen di euh, fekk si foofee ci assemblée nationale waaye nag tey daal ay benn benn nit rek lañ fi daal di euh, nemmeeku fii nii ci assemblée nationale ndax daal disposition sécuritaire bu daal di am solo bi nga xamante ne si nii amal nañ ko fi depuis ci suba. moom lañ fi nemmeeku waaye daal nemmeekuñ fi benn yëngu-yëngu boo xamante ni si nii daal dina fi am ah, fii nii ci ah, assemblée nationale. comme ni ma ko waxee rek foofee ca assemblée nationale loolu lañ fa daal di euh, euh, daal di nemmeeku mun naa euh, lool bu fa daal di ci suba la foofee ca assemblée ni sax pour daal di yëkkati fa ab caméra wala ab micro sax dafay nekk lu difficile ndax fekkee sax ngay jël interview ci ñi nga xamante ni ñoo fay ki nga xamante ni moom mooy passager bi nga xamante ni si moom nga doon jël foofee ca assemblée loolu lañ fa daal di nemmeeku ndax disposition bu ama ama am solo ci mbirum police ak gendarmerie boo xamante xamante ni si moom lañ fa daal di nemmeeku foofee ci assemblée nationale mu nekk loo xamante ni si daal euh, lu doy waax la disposition euh, sécuritaire bi daal di nay euh, jaaxal ñu bëri lool mu nekk loo xamante ni si daal en tout cas am na solo lool ginnaaw bi nga xamante si la ko waral mooy woote bi nga xamante opposition bi woote woon nañ ko foofee ci assemblée nationale ngir rek ñu daal di ñëw foofee ñoom seen ay partisans seen ay militants ñi nga xamante ñu fekk leen fa rek tey moo tax tey nationale euh, daal di fay teg ay euh, euh, li nga xamante ni si nii moom mooy ay li nga xamante ni disposition yu strict balaa ngay jàll daal dina am lu leer nañ moom moo daal lay day jàllale nga mën a dugg foofee ca biir la nga xamante moom mooy la wër sax assemblée du ñu wax biir assemblée waaye la ko daal di wër pour nga daal di fay dugg foog daal nga daal di wane loo xamante ni si lu leer nañ daal moo la fay dugal donte am nañ fa sax accès waaye pour nga yëkkati fa caméra wala nga yëkkati fa micro dina nekk lu am am xamante ne si moom mooy assemblée boobee la ko wër dañuy gis euh, police di def ay patrouille ci euh, li nga xamante ne moom mooy euh, mbedd biir Ndakaaru yooyee jege foofe ci assemblée di wër duñ bëgg benn ful nit sax dañ lay gis ngay dox ñu ne la lan moo la tax nga daal di ñëw fii lan nga fiy def dañu la koy laaj boo waxul lu am solo daal ñu daal leen dugal ci seen yooyee daal lay euh, yóbbu looloo fa am foofee ci assemblée nationale mu nekk disposition bu am am solo ci fàttali leen rek ni euh, nemmeeku nañ fa euh, teewaay ki nga xamante moom yoo xamante ni si ñëwoon nañ déposé ab recours foofee ca conseil constitutionnel umpale yooyu daal di wul sore ba tax nag fekk di wax ak presse bi di si moom moo tax ñu ñëw foofee ca conseil constitutionnel waaye waxtaan boobu mujjul daal di àgg lañ bëggoon ak ñi nga xamante ne moom mooy taskatu xibaar yi ndax daal police mu ñëw daal di koy tas ak ay grenade lacrymogène yu mu fa daal di sànni ba tax daal ful euh, daal di tasaaroo foofee ñu jàpp leen ñoom autorité yooyee daal leen dugalaat seen biir oto daal leen wax ñu daal di euh, quitter li nga xamante moom mooy lieu yooyee ndax daal ñoom bugguñu benn benn benn rassemblement bugguñu ñett nit yu daal di taxaw foofee nga xamante ni moom moo ñeel assemblée nationale boobee mu nekk euh, loo xamante ni si nii euh, moom daal moo am fii ci assemblée nationale donte ñoom yëkkati nañ sax ay kàddu ñoom Mame Boye Diao yëkkati nañ ay kàddu expliqué yu ni mel waaye daal wax ji daa mujjul àgg. Euh, li nga xamante ni si nii moom mooy nga xamante ni moom moo am foofee ci assemblée nationale ngeen gis ko noonu. ngeen gis ko noonu mu daal di am foofee ca assemblée nationale mu nekk lu doy waar ah, ñoom Mame Boye Diao nag jot nañ dékk leen seen ay sur ay micro ñu daal di eh, wax li nga xamante ne si ni moom mu eh, daal di am foofee ca conseil constitutionnel ak recours ba ñu amal waaye daal ba ñëwee foofee ca assemblée eh, bëgg fa taxaw police moo daal di leen di tas di leen di libéré ñoom ñooñee nga xamante ni si ñoom ñooy les leaders mu nekk daal li nga xamante ni si de général moom moo daal di ruuseegun fii ci assemblée nationale jamono jile. nga xamante ni député yi daal ñu ngi ci biir di amal li nga xamante ni si moom mooy euh, plénière boobee ngir rek lu jëm ci euh, mbirum euh, loi bi nga xamante ni si dinañ ko daal di voté mu ñeel loolee nga xamante ni si ni moom mooy mbirum prolongement wu li nga xamante ni moom mooy candidat mandat wu kookee des présidents de la république ginnaaw bi nga xamante ni si ni daal nañ ajandi li nga xamante ni moom mooy yile élection mu nekk loo xamante ni si ni ñoom opposition bi daawuñu si daaduñu si ànd ba tax nag ñoom ñu woote woon tey fi assemblée nationale daal na daal ay partisans li nga xamante ni moom mooy seen ay militants nañ leen fekk ci euh, fi nga xamante ni moom mooy assemblée nationale euh, ñu daal di fii bu fa xamante ni si euh, yoon daal di amal nga xamante ni si nii moom mooy ab taxawaay bu ama ama am solo ci biir fi nga xamante ni moom mooy buntu assemblée nationale ak li ko wër ba tax am fi ak sax dafay nekk lu difficile pour nga yëkkati fii li nga xamante ni moom mooy sa jumtuwaay lu loo xamante ni si ni moom mooy Euh, jëm ci li nga xamante ni si nii moom mooy euh, foofee lu jege euh, buntu assemblée nationale bi daal bëgguñu benn benn benn doomu aadama bu daal di amal fi nga xamante ni moom mooy ay taxawaay ci buntu assemblée boobee pour le moment loolu moo rusandeegun fii ci assemblée nationale jamono jile moom daal moo fi euh, rusandeegun lu fi daal di am ci kanam dinañ leen ko daal di euh, digtal loo xamante ni si moo fi am ci ay xabaar dinañ leen ko daal di euh, digtal lépp loo xamante ni si am na ndax loi ba dana jàll am déet ndax loi ba du jàll danañ ci lu ci am daal ñoom daal bu ñu paree ci plénière boobee def seen ay am lu ci leer dinañ leen ko daal di digtal incha allah rabbi fii nii ci 2A TV incha allah moom daal li ma ko waxee sànq rek moo nekk li gën a fes ci fi nga xamante ni si moom mooy bésub tey bi yemoo juróomi fan ci weeru février atum 2024 Euh, lu jëm ci euh, mbirum li nga xamante ne si nii moom mooy euh, mbirum loolee di vote loi bi nga xamante ne si moom mooy a prolongé mandat wu ki nga xamante ne si nii moom mooy président de la république ginnaaw ajandi bi nga xamante ni daan nañ koy ajandi loolee nga xamante ni moom mooy élection yi jamono ji li nga xamante ni waroon na am le 25 février bi ñu daal di nekk ñoom na opposition bi ànduñu benn yoon ci li nga xamante ni moom mooy ajandi boobee la waral euh, boobee la ajandi nag dañ ciy ñëw ndax ginnaaw bi nga xamante ni si nii kookee di euh, Karim Meïssa Wade daal nañ koy génnee euh, ci li nga xamante ni si nii moom mooy assemblée nationale assemblée nationale nag bañ fa daal di demee ñu daal di commission d'enquête lañu daal di ubbi foofee ubbi commission d'enquête boobee nag moo waral président Macky Sall keroog ci ay kiiwam dafa daal di ci discours am dafa xam leen daal nañ bàyyi assemblée national ñu amal seen ab liggéey ah, bu daal koy wëyal jamono ji la moo tax mën a daal dañuy randal li nga xamante ni moom élection yi ba ñoom ñu daal di mën a def li nga xamante ni si ni mooy ah, seen liggéey ah, loolu daal moo fi gën a ruusandi après lu ci am rek dinañ leen ko daal di digtal incha allah